حقنا وكيلنا في سفري وأدري أنت وأنت قوسنا من درري أنت الذي أليتنا ما يرخب فضلا فكفنا به ما يرخب نجي بفضلك عبادك بحق والتبئم وكفهم كل مقف اسر قلوب المشركين كلهم لخيرنا ونجنا من كيدهم رجاؤنا نصرك لا يريم لأنك المنيء والكريم jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi ñu ngi fii ci golf sud euh, ku ne golf sud tudd champion bi nga xamante ni mooy Balla Gaye 2 ci safaram bi tey mooy deuxième jour bi mbokk yi tey euh, gis ngeen démb li ñu leen fa dégtal dégg ngeen gis ngeen démb lépp loo xamante ni xew na ci safaru Balla Gaye 2 bi euh, dégtal nañ leen ko ci wasaare làmb tey ñu ñëwaat fii ngir xool waañ bi bépp gis-gis boo xamante ne am nañ ko fi ñu ne ci waañ bi di togg ak ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir waañ bi yëpp dañ leen di jël léegi ñu ànd ak sëñ Bass dugg ci biir waañ bi te dem ilayka lan ilaa siwaaka narhabu wa fii bunaaka laa siwaaka narhabu lusna وعوزنا بك من نار اللهب ونار أرب فاكفنا كل النسب لسنا باسمك الأثيم يا وكيل فكلنا إن خفيف وثقيل قلنا عن السرر والسرار في هذه الدار وتلك الدار رجوت رحمتك. Koor bi laa bëgg a wax. suukaru koor suukaru koor aywa bi wax <laughs> waaw dama dëgg yàlla. suukaru bi laa dégg ngay wax léegi. waaw koor bi ma tudd moom damaa ne ren safar gi moom. bu kenn bougé ndax suukaru koor ren gu ñu balla jox bari gu mu bari ak bett gum ñu bett yal na ko yàlla defal jàmm waxuma sax da war waxu sara safar gi waaye li mu def moom commencé ko si koor gi ba tey yal na ko ko yàlla fay yal na ko ko yàlla yàggal fii Sakho famille billaay wallaay talaay ba bii yal na fi yàgg ñu koy teewee ay at at at yi ñun de jigéen ñu golf ñun meruñu moom waaw ah, Balla dañuy wax ni géejawaay géejawaay ak golf euh, daanaka golf euh, ci biir géejawaay la bokk mais Balla Gaye fa mu dëkkoon Géejawaay ñëw tuxu fi golf mais bi mu ñëwee golf ba léegi dafa mel ni waa golf Balla Gaye dañ ko jàppee wuñ ko comme dëkkandoo mais dañ ko jàppee comme doom. ah Balla daal moo ñëw jàppee ñu comme noonu Balla daal dafa ñëw jàppee comme boppam moom moo ñu jàpp ñun ba pare Balla dafa ñëw jàpp ñu ay jigéenam di jël xaalisam dañuy jox ne leen liggéey leen duma leen si tegal ngeen def lu leen neex. man mi mi lay wax ak yow maa ngi lekk xaalisam toog ci ba tey fayuma benn dërëm. dañuy jox dañu may dañu ne liggéey leen dañu defal lu ne waaw kon moo ñu bëggal boppam moo tax ñu bëgg ko loolu kese la du leneen mu néewu ma wax nag. tur bi naan la koro bi doy na man ji nee na jaaw laa tudd. la. Koundoul laa tudd waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla jul si yonent bi di leen ñaanal yéen tamit yéen télé bi di leen ñaanal télé bi nekk ay télé yu bëri yàlla bàyyi leen fii ñu fekkee ay yu bëri. waaw ñun liñ mun a wax si Balla rek bëriwul Balla nit ku baax la yaa ngi dégg moom xale bu ndaw soo mun na foog yow même day gis sa xale bu ndaw nga yor kaas café di dem bu dàq ji la ba jot la jël kafe gi naan comprendre boo si boo si naree indi kii mu xëri xaalis may la ko nit ku baax la bu tabas ki amee fii ñëpp lay may xar ñëpp lay may ay yére yaa ngi dégg sekk ñëpp jàmm safar bi moom yaa ma gën a xam ñu ñaan yàlla yaa ngi dégg luñ mënoon luñ mën ren yàlla nañ ko mënaat déwén yaa ngi dégg suñ sañoon ñu def ko ay jur yu bëri waaye xam nga màggal bi instant yi ñëw na dafa xat comprendre nga ñu ñaan déwén incha allah buñ mënee def sax 14 jours sax buñ ko mënoon def incha allah dinañ ko def waaw buñ koy nuyu di ko sant di ko gërëm. mais safar yi neex na macha allah lépp bari na ne na gañ Balla Gaye dafa baax Balla Gaye dafa ñoo bëgg Balla Gaye jabaram baax na yaayam baax na Sa baax na koor gi. korite gi daf ñoo may ginaar yu bari barki Seydina ma xare tam xare ji mu roy nag ñaari nag fii séddale koñ bi yëpp am Balla Gaye baax na yaru na am na respect ci nit barki yonent bi yal na ko yàlla defal jàmm ci barki Seydina ma xam ne loolu lañ koy ñaanal yal na ko yàlla defal jàmm am na sutura baax na yaru na loolu lañ xam ci moom ak buri bàcc li I don't care tur bi naan la man Fatou Ngom waaw bajanu gox bajan maa lay <laughs> bàjjan ani soxma. waaw na ngeen def. Omar sama doom bu baax la. bëgg nañu. day jël xaalisam du ñu jox. du ñu jël xaalisam du ñu jox. di rey ay nag du ñu jox. même tam xarit bi. fekkuñu fa de mais si dama ñëw. sama doom na ma Omar moo la jox mbuus mi du ñu may xaalis lu ne la ñuy defal. yàlla na ko yàlla dafa jàmm. bàyyi ko jabaram. bàyyi ko ay waa këram. yàlla ubbil ko bu yaatu yaatu yaatu. lii mu mën nii. yal na ko yàlla daf mu koy mën ay déwéni déwéni déwéni déwéni wax dëgg yàlla nit ku baax la kontaan naa torop ñu koy gërëm di ko sant. baajanu man Mariama laa tudd ñu may wax maama. maama waaw. maama Taraware. soxna si noo dinaa la soose laa dégg. waaw yaa ngi wax wala. waaw maa ngi tudd. man mami laa tudd. sant saajo Sadio saajo Sadio. waaw. léegi euh, mami tey ñu fekk leen ci waañ bi ngeen nekk fi diiraa démb ba tey euh, ngeen nekk ci togg yi di togg di jàppale Balla Gaye 2 surtout mais ku xam togg xam ne dëgg-dëgg jaamu yàlla ndax togg ma mu neex nga jël ay jullitu yàlla jox leen ko yiw boobu yàlla suñu borom dong moo ko mën a fay tey nga nekk ci waañ bi ban yëg-yëg nga ci am. Ah, li ma ci moom mooy sant yàlla yi dañ koo tàmm ci Balla chaque année bu jotee moo ñuy defal lu baax def lu baax ñu togg lu baax jox ko jullit yi ñu lekk ñëpp ay lekk ku fi ku fi ñoro di nga lekk Balla Gaye mel noonu moom moom bosam du tuuti moom ku fi nekk rek boo ñëwee boo ñëwul ñëpp ay lekk ba suur yal na yàgg di ko def ñu ngi koy ñaanal lu mu bëgg yal na ko yàlla may mu yokk di dem rek yàlla baax na. waañ bi tàng na. Ah. waañ bi Balla tax na ba mu sedd sax Balla moo tax ba mu sedd bu naree tàng sax du tàng day sedd guy ñun ndaw ñu te yoruñu ko ndaw moo tax waañ bi nag dafa sedd. may ma ko tuuti ci ci soose. mbaa mandinkool mbaal kontoon na mbaal jay la bii mu Balla Gaye de la lu moo momo yalon ko Balla Gaye naala luusita mo beele kana te naala luusita beele ka domoro ke naala luusita fembuka tuutu fembuka dasa an wañe candidat ka sumayala fen fen ɓe duniya mi mandin koti alna balage mo munti kono mbadande almalaya so sima ala ni jata kende an ar je firum almalaya sow beela a tel mum fana mo journaliste ote mbaldan na almalaya so sima ala ni jata kende an ar je firum waxal amin amin <laughs> jërëjëf duñ koy waxee ci soose amin <laughs> noonu la amin <laughs> soxna noo def nga baal ma tuuti fàttali ma tur bi Dieynaba Camara yéen nekk ci waañ bi ma fekk leen fii euh, waañ bi tàng na trop mais yéen ngi ci liggéey bi euh, di ci jaamu yàlla suñu borom di ci jàppale seen doom Balla Gaye 2 ban yëg-yëg nga ci am. Balla Gaye moom lépp lu muy def rek ñun ñëpp dañ ciy bokk ndax dañoo takkaloo kër ñu dëkk ci golf gi mu bëgg ñëpp nag ñëpp bëgg ko moo tax bu xewlee ñëpp dañuy ñëw dafa oyof dafa mën a communiquer nit dafa mën a fa wax xale dafa mën a fa wax mag. seen waa kër mag ak ndaw ñëpp baax ñoom ñëpp dañu def ñëpp ñuy benn moom bu génnee ci mbedd ñëpp dañuy génn ñu toog di naan ataaya su duggaatee ñu dugg su génnee ñu génn kon Balla Gaye nekk na nit koo xam ne nit ku yaatu la nit ku baax la nit ku am kóolare la dafa am kóolare man mii di wax ak yow damay fa moom di ko fa moom di ko naan sama chéri koko di ko fóon fii di ko raay fi musul mel waaw te danaan mag màgget mi di ma fóon di ma raay waaw te bañul yooyu yëpp dama koy fóon di ko raay di def lu ne waaye musul bañ dem na ba mu jigi léegi nekkatul dëkkandoo biir golf mais doom la ci biir golf waa golf dañ ko jël moomele ko seen bopp waaw ñun ñëw ko moomal suñu bopp ñun ñoo ko bëggal suñu bopp man affaire u làmb yi sax musul nekk sama affaire mais depuis ba Balla Gaye dugg see fii ba léegi dafa nekk sama xarit sama doom dafay sëy mbuur dama lay wax benn wax sama doom dafay sëy mbuur muy matu nekk ci kaw sama doom bu góor wàcce ne ko sama yaay sama mag dafay matu mu ngi ci kaw mu yéeg ci kaw wàcce ko dugal ko ci otoom yóbbu ko ba hôpital mu mu delloo ci ko loolu ko ku la ko defal bëgg na la man manqué wu ma dara Balla Gaye lu ne la may defal dama am seede nag ñii di toog nii xam nañu li may wax seede la lu ma soxla suba ba ngoon bu ma ko ñaanee may ma ko ñoom ñëpp nag bu ma duggee seen biir kër rek bu ma nee lii laa soxla du ma génn te mayu ñu ko ndax yaatu mooy def loolu dañoo yaatu dañoo baax dañoo am kóllëre dëgg na yàlla dañoo baax bi wa kulli bi am nin atlaxa bi yata laqa la siina aslamoon من جن أسر دون من يسلمون علي من الله في الجلال بإذنتي من دلال إدلال سعد سياتين إلا يتردى بسكره ولي منا يسردى يقود لي القرآن قولا لم يكن لخير الدهر لخير يكون سعد سياتين إلا يتردى بسكره ولي منايا سردا يقود القرآن قودا لم يكن لقيري الدهر وقاد لي يكن سنت صلاة وسلاما وسنة لمن به درا لخير ينصنا سنت صلاة وسلاما وسنة لمن به درا لخير ينصنا